mais Assane ñu doore ko ak euh, benn ONG bu nekk ca Fara ca Espagne weddina Aïssata Tall Sall ci lim bi nga xam ne waxoon nañu ay xale lañu yu jëloon ay gaal loo ca jëm ca bitim réew te ab lim faatu ca ñu métti lu waat it la xew ci Mbuur sept personnes faatu nañ ci ay gaal loo ca la ñoom itam ñu jóge woon fii waroon a jëm foofu la ca tugal. bi de waruñoo weddi Aïssata Sall. ndax. ndax euh, gaal yi doon dem bañ nañ ko ba ni Afrique. waa Afrique bi ñoom ñoom ba di dem. Hmm. àndandoo dem. Hmm. kon nag bu fekkee lim nañ lim trois cent nangam personnes yu dee ay Sarr Sall mën naa gëstu ba xam ne ay doomam lii la sa mu wax si ay doomam yeneen loon yoonam nekkut si yeneen doom yeneen yi. Hmm. kon nag bu fekkee ne maanaam mën nañoo lim lim boobu bëgg ko moomale Aïssata Sarr Sall. Aïssata Sarr Sall ONG boobu ñoom dañoo maanaam li ñu maîtriser mooy mbirum immigration yu ni mel. waaw dañoo tax nga ni ñoom kon dañoo dañ ci. man gënuñu koo maîtriser Aïssata Sarr Sall mi mi dénk loolu. Aïssata sax à tout moment koo folle. waaw bu ñu ko follee keneen kay ñëw dana ko maîtriser. non li ma bëgg wax mooy lu jëm ci wàllu euh, affaire étranger. waaw nekkul ni nit ki dafa nekkoon ci étranger yi tax ñu dénk ko hmm. poste la bu ñu ko jox mën na ko bañ a. maîtriser moo tax ma wax la loolu. mais bu ñu la dénkee dara kay da ko maîtriser. da ko maîtriser. waaw mais tey jii bu ñu nee trois cent nangam personne dee nañ ñu moomale la ko da ngay taxaw nga nga nga summee ko ba set nga sol sa robe laxasaayu lànk leen moom ma hmm. ni leen fukk ak laa ca am. waaw ba pare nga ne fukk ak juróom yi loolu xabaar bu baax la waaw xabaar bu baax la ndax yeneen leen di digal non non dañ ne Afrique Afrique lañ wax ñoom màbboon di dem am na ñu dëkk Gambie am na ñu dëkk Mali am na ñu dëkk nangam am na ñu dëkk nangam léegi lan moo tax ñu bëgg ko moomale ma koy nangu kon discours boobu mu def baax na ñoom waa ONC bi vidéo bi ma yónnee woon démb ñan lañ ban si mooy bi nit ñi tëdd naar yi ñi dóor ñëw ba ñuy seen deret yi kii ñi tëdd biu moo ko sax dama ko séen noonu gars yi di ko bindee ah da nga ko bindee da nga bindeel ko mën naa di seetaanagu ma ko sax yow xam nga fan la xam ma ko seetaanagu ma ko léegi yow de gëstuwoo fan la de xamoo ko ubbiwoo ko léegi ONG bi ñoom def seen i gëstu nga ni loolu moom amul non non loola moom deux mille deux mën naa doon sax ay deux mille vingt deux wala deux mille nangam mën naa doon lu yàgg hmm. ndax vidéo yi moom gars yi dañuy bindeel léegi voilà mais daal Aïssata Tall Sall li mu def noonu la baax na li xew mbuurit euh, Afrique nañu fonkaat seen doomi réew. jox leen cër jàppale leen wutal leen liggéey. ñu wut liggéey jàpp ci dara ndax bari na fi ñoo xamante ni sony bu. dañuy jàng ba am seen ay diplôme buñ demee fu ñu se pour bëgg ku leen jël ñu liggéey dañuy bañ di xaar ku leen boole diw. sama bàjjen diwa ñu boole sama yaay diwa ñu boole sama sëriñ nangam ñu boole bu loolu amul doo liggéey. jëlatuñ kenn ngir am njàngam dañuy jël nit ngir diwo ñu boole kon nañ képp ku am say diplôme ñëw man loo amit la muy def nañ ko jël mu liggéey ci société yi ministre bi ñu dénk loolu na koy saytu moom it ministère yi yëpp di jël ñi ñuy jël seen i militant kese la ñuy jël te waruñoo jël seeni i militant dañoo war a jël ci gone yi te dëkk àll ba fu mu mën a doon bu ñëwee mën a liggéey dénk li mu mën jox ko ko boo ko jox day dugg ci gaal gi doom d'accord voilà jërëjëf merci beaucoup Abdou Top euh, ma ngi may jubbanti Saint-Louis la mbir ma xewee la gaal ga kiyee ba sept personnes jot caa faatu alaaji euh, Mor moor Mor nee na démb lan moo xewoon waa jëmb jàmm rek la ñu ngi koy wax ci ndorteel émission bi dañoo amoon ay réglage quelques technique ci technique bi rek loolu moo tax alaaji hmm. ONG bi de moom weddi na ni mu waxee dafa weddi ay sërtaal sàll mi ñu dénk dem beeg dikk bi ci wàllu bi biti réew ak affaire euh, étranger nga lëkkale ko ak li xewoon ca saint ba sept personnes faatuwaat ci waaw xam nga Assane li mu jëlee affaire bi. Hmm. maanaam moom dafa comprendre mbir bi defe naa ne Aïssata dafa wax ne nangam la ca am. waaw hmm. nangam la ca Sénégal am. Hmm. moo defe naa nag demeewul noonu. est-ce que Assane déglu na ay Aïssata li nga wax noonu sax yow ab tuuma la. ab tuuma la maanaam boo nee Sénégal nangam ñoo ci faatu. tuumal nga la wax loolu tuumal ngay def. yaa ngi yaa ngi amuñu sa loola. dana danaa war ne fukk ak juróom laa ci am. yaa ngi da ko war na wax. <laughs> yaa ko wax de. dama da ko ku ko neexoon wala da ko waroon <laughs> <laughs> waaw li nga wax daal li nga wax daal pare. moom est-ce que déglu na Aïssata sax. déglu gu ma ko yaa ma yaa ma wax si li ma wax laa wax si li nga ma wax laa bàyyi la laaj mu wax. waaw xam nga. Euh, ñee dañoo wax joxe ay chiffres bon moom bi mu ñëwee mu joxe mu weddi chiffres yooyu. Mm-hmm. ñee confirmé waat seeni chiffres ñee li ñu wax teg nañ ko fu wér. parce que defe naa ne xibaar bi. Mhm. bu fekkonte ni moom lañ doon xaar mu jox ñu ko. Mhm. Euh, dana yéex a dikk donc xibaar bi dafay am ba pare ñoom ñuy soog a ñëw di jox mais xibaar bi moom mi ngi jógee bitim réew. Mhm. ñaa ñoo expliqué li tax nag parfois duñu ñu sawar di wax. ci li nga xamante ni bii xew na ci immigration clandestine euh, mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu jiite. Euh, dañoo. defut li ñu war a def parce que Afrique son bu alaaji mooy continent boo xam ne sunu borom def na fi lu ne mhm. waaye sunuy njiit mhm. ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo tooñ askan wi ci naka waaw maanaam buñ ñëwee liggéeye lu ñu seenaw askan mhm. looloo tax nag seenaw askan à chaque fois di am xememteefu génn ko parce que daanaka fii ñu ne ñi dem dañuy considérer fi ñu nekk comme ab kaso mm-hmm. lu tax c'est parce que da ngay ñëw liggéey Assane expliqué na sax mm-hmm. am say diplôme jàng ba pare ñu ne la boo jàngee am liggéey mm-hmm. mais nga jàng ba pare liggéey te la ticc doo am liggéey ngay wër ñi nga xam ni ñoom lañ jox pour ñu régler problème bi au lieu ñu lijjanti problème mu nit ñi dañ lay wax ne la ministre boo xam ne tamit fa yor wàllum xëyu ndaw ñi mais duñ ko juger ci bilan mais dañ koy juger ci élection yi génn nu mu doxalee mhm. duñu xool la nga xamante ni bi def na ko ci liggéeyam maanaam dañuy fal ministre yi ngir ñuy politique maanaam fayuñu la sax pour ngay liggéey dañ lay fal pour nga dem di wuti ji ay militant bàyyi fële liggéey bi bàyyi mbirum ndaw ñi mhm. loolu mooy jafe-jafe yi nga xamante ni bi tey moo jur lii di am mhm. parce que tey ndaw ñi am na loo xamante ni bi tey euh, bu doon sunu dirigeants yi def nañ ko danañ ñu nawlewoo yeneen dëkk yi xam nga lan mooy nawlewoo que ni tey sooy bu yow nga mën a yor sa passeport. mën a mhm. dem tukki ji. tey jii tubaab bi li muy yor passeport am ñëw dugg ci sa dëkk. Mhm. def ay tourisme ak affaire yooyu. nga xam da ngay yàkkamti sax ngir mu ñëw pour wàcc fi xaalis tey bu fekkonte ne bi toll nañ fenn fi loolu danañ ko mën a am. Mhm. mais liggéeyuñu moo tax bu ñuy wax affaire immigration clandestine. ñoom dañuy nekk du ñu nekk à l'aise pour wax ci. ok moo tax it. Euh, dafa bari ay fay daal waaw moo tax yenn yu ci bari bu ñu ko mënee nëpp nëppal dañ koy nëpp nëppal mais léegi àddina bi kenn nekkatu fi rek petu. xanaa benn dëkk ko def muy Corée du Nord. waaye yeneen dëkk yëpp dañoo linké. d'accord àddina bi moom lay xew fële ak lay xew bitim réew ak lay xew fi yëpp fii la xew rek. d'accord maanaam amul dara loo xam ne mën a tilifay il faut que ñoom ci seen jëmmi bopp. Mhm. ñu mise à seeni doxalin mhm. pour mën a méngoog jamono. macha allah.